société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy séeq waxtaan wu yaatu ak ambassadeur bu Palestine bi nekk ci réewum Sénégal di wuyoo si turu Sawar Ibra Gueye te daan na musiba ak mbelengana ñi nga xam na ñooy waa Israël nee na Israël réew la moo xam ne réewum wéyu la réew la moo xam ne lu ko neex lay def te nag tegu ko fenn te loolu nag jamono ji maanaam dafa war a gi nga xam ne jamono ji na daan nañu koy amal askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Palestine daan nañu si kontaan ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci bombardement yi nga xam ne Israël def nañ ko lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay nit ñàkk seen bakkan lu ëpp ñaari junni ci ay nit am nañu si ay gaañu-gaañu yoo xam ne ay gaañu-gaañu yu métte métte am ñoo xam ne sax duñu saa jóge am ay laago Palestine am réew la moo xam ne war naa mën a am garantie boo xam ne dafay jóge ci droit international jamono ji nee na jot na sëkk maanaam nag ñi nga xam ne ñooy communauté internationale bi daal di séparé agresseurs yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy agressé moom ambassadeur bu Palestine bi nag dafa jàpp ni ñii nga xam ne ñooy waa Israël maanaam ay agresseur lañ yoo xam ne li ñuy def teguñu ko fenn yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu am na mobilisation nationale boo xam ne ci week-end bi amuloo nañ ko ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi yëpp ngir nag ñaxtu di xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum góor jigéen ba pare nag loi bi nga xam ne mooy criminaliser wàllum góor jigéen ñu daal di koy jëmmal ci réew mi ay imam kilifa diine ak ay jàngalekat ak way politique ak ay sénégalais maanaam da maanaam ñoo génnoon ci mbedd mi doon ko naqarloo journal bi nee na maanaam Ndakaaru ak Thiès Mbuur ba Sédhiou foofee fépp nag askan wi génnoon nañoo yéen kaay gi ne ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou daan nay signé li nga xam ne mooy pétition bi ko gars yi jébbal ngir nag ab loi boo xam ne dañuy criminaliser wàllu ngóor jigéen yéen kaay gi de Les Échos nee na ñi nga xam ne nag ay góor jigéen lañu nekk ca diwaanu France maanaam mer nañu ba mara détaillé daan nañuy na xam ne bu ñu jaarati ci réewum France général des Tidiane ak xalif général bu Thiénaba ak ku ñuy wax Ababacar Mboum mi nga xam ne mooy coordonnateur association sàmm jikko yi ak ku ñuy wax imam Dame Ndiaye imam Moustapha Guèye ak ku ñuy wax Dambo Cëg Clédor Sène Assane Diouf ak Cheikh Omar Diagne ñii ñëpp ñi nga xam ne ay góor jigéen lañu nekk ci diwaanu France maanaam nee nañu bu ñu jaarati ci diwaanu France yéene kaay gi da la témoin nee na xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñoo ngi jàppale gars yi ci lu jéem ci wàllum xeex ak jigéen ci réew mi yéene kaay gi de réew mi quotidien nee na réew mi nga xam ne mooy Mali Mali yënguwaan na ndax ab coup d'état moo amaan ci biir ab coup d'état yéene kaay gi ne na ginnaaw coup d'état bi nga xam ne defoon nañu ko Ibrahima Boubacar Keïta ku ñuy wax Bandao moom nag la ñu dénkoon réew ma mu daal di tabbu ab premier ministre bu tudd Moctar Ouane ñoom ñaar ñëpp militaire yi teg loxo yóbbu ca kàtte yéene kaay gi na en li nga xam ne moo xew jamono ji ca réew Mali doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne lijjanti dina jafe loola yéene kaay gi Dakar Times nee na maa ko nemmeeku nañ ko ci biir Mali maanaam dina jafe loolu ñu tabaxaat li nga xam ne mooy armée malienne bi yéen kaay gi di las nee na coup d'état dans un coup d'état yéen kaay gi di réew mi quotidien ak las ak l'observateur nee na njiitu réew mi di président Macky Sall jënd na avion bu bees tàq wala sax ñu ne ab roplaan yéen kaay gi nee na A320 boo xamante ni dajjeeku ñu ko yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na avion boobee nag maanaam cinquante huit milliards la ñu ko jëndee yéen kaay gi na cinquante neuf milliards yéen kaay gi di dépêche nee na mi nga xam ne jamono nekkoon na fi député nee na lan mooy ndey état bu Sénégal jënd ab avion ci xaalisu askanu senegal ba pare lànk kandaare bañ a wax li nga xam ne maanaam mooy prix bi njëg gi jamono ji yéen ngi dégg ay piri yu bare bare bare yu wuute Cheikh Omar Sy nee na nag loolee état bu Sénégal maanaam moom ci boppam moo ko waral état bi nee na maanaam secret défense kañ la jël xaalisu askan wi jënd ci ab avion kañ la nekk secret défense loole nag ab laaj la boo xam ne Cheikh Omar si moo koy laaj nee na jamono ji ak jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund ndax yell na ñuy jënd ab avion jamono ji ñu toll yéene kaay gi di libération ne na Pointe na jamono ji nag ñoo ngi koy jaay yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee na jamono ji mënumaa wax sax mënumaa yëkkati ay kàddu ci Macky Sall mi nga xam ne jël na alalu réew mi di si jënd ab avion jamono ji nga xam ne maanaam moom la ñu tolloo lii nag ay caaxaan dëgg la ma wax nag ñu naanu waaw avion bi prix bi duñ ko mën a wax ndax waaw secret défense yéene kaay gi nee na loole nag maanaam mooy fonto Sénégal yi dëggantaan yéene kaay gi de la turbine xëy di wax ne Sénégal ak bor yi nga xam ne moom la amee ndax barki dem moo njaay Macky Sall moo ngi sàkk ñu baal jël xaalis bu nu toll di jënd li nga xam ne mooy ab avion ak Sénégal yeeg jafe-jafe yi nga xam ne amee nañ ko ci woppi coronavirus yéen kaay gi de laas xëy na ci malaise bi nga xam ne Ousmane Sonko amee woon na ko fan yi ñu génn maanaam ca Bignona ne yi ne ñoo fa nekkoon ca cérémonie boobu maanaam jaaxle woon nañu loola yéen kaay gi di Vox Populi nee na Ousmane Sonko a nag bi mu fiy jàmbat digg ginnaaw guy métti jamono ji Ousmane Sonko ma ngi ca Malaysia est-ce que waruñ nag di joxe ab cutis médical yéen kaay gi délibération xëy ci wàllum trafic drogue nee na am na ñaari militaire ñaari militaire yoo xam ne la ñu leen a teg loxo ñu yoroon lu toll ci cinquante kilos drogue ñaari militaire gendarmerie bu nga maanaam moo leen teg loxo ci benn oto particulier Peugeot 406 yéen kaay gi di record nee na Sadio Mané jël na Liverpool yóbbu ko Ligue des champions Atlético Madrid jël na championnat ba ca Espagne Lille jël na championnat ba ca France yéen kaay gi di sunu lamba rëg-rëg ki nga xam ne mooy guy gi nañu face à